wa naw nawwir wa bi arshida mbokki jullit yi nuy seetaan ak mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax fu waay mën a nekk te dégg suñ kàddu wala mu nuy seen di am mbégte bu baax ci jataay yenn ngir ànd ci li nu bokk muy ak taalibe ñu jàngat ci yenn tomb def ko muy sunub yóbbal ba beneen yoon mu njëkk a fàttali ne doomu aadama niñ ko xamee noonu ñëpp ñaari mbir ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo seq muy yaram wi ak ruux gi yaram am na lu muy soxla loo xam ni mooy neex ci moom moo koy dundal mooy tax muy màgg ba am jëmm ji mu am loola mooy lekk wala naan ak lu mel ne sëy wala yeneen yooyu yaram wi moo ko soxla waaye am na beneen dëgg dëgg goo xam ne mi ngi ci biir jëmm ji nga yor muy ruux ruux di lu sell loo xam ni secret bu suñ boroom def ci jëmm ji moo tax ngay dégg di gis di xam yore sa yore am xel am na it wax xol muy ay sentiment yoo xam ne ay yëg-yëg di bëgg di bañ di di di di di di mbir di rëy ci yow yooyu yëg yooyu xol moo koy moo koy am itam xel yooyu yëpp ruux gi moo tax nga mën yooyu yëpp ruux googu nag day lu sell lu mat di bàyyi xel ndax suñu borom tabaaraka wa taala da ko teral as ba askan ko ci boppam wax ne wa nafaxtu fiihi min min ruuxi askan gi mu ko askan ci boppam loolu lu sell lu rëy la ruux googu nekk sa biir nag lenn dong moom la bëgg mooy lu koy jege jegeel boromam tabaaraka wa taala ruux lenn rek moo ko neex mooy lépp loo xam ni da koy tax mu gën a jege boromam walla lépp loo xam ne dafa laal ci suñ borom tabaaraka wa taala loolu rek moo neex ruux moom li ko neex mooy génn ci sa jëmm ji dellu ca awalim yu tedd yooyu nga xam ne fa la jóge muy almalawul ala borom xam-xam dañ ciy joxe misaal sax ci yu bare bari masalan dañuy gis nit koo xam ni. mi ngi ci àdduna am lépp yore àdduna ba mu doy sëkk lépp lu aju ci lekk ak naan ak wàllu bànneexu bakkanam yépp li mu ci bëgg am na ko ci waaye teewul leeleeg mu toog du am benn wéradi waaye jëmm ji yëg tayal gum tayal mel ne nekku fi nga xam ne ñi naan ay doom sax dem ci psychologue yi di wala nafsaani yoon di ma xam ko sëñ bi dañ koy tekkee ngir ñu jox leen ay tegtal ngir ñu jaar ci ngir ñu mën a dellusiwaat te liñ bëgg ci àdduna lépp mi ngi seen wet loolu dañuy borom xam yi benn fiir rek la wax ne moom moom moo ko mooy ruux gi ci moom mooy yëgle wane ne moom dafa tumuranke lekkut naanut dundut ruux leen rek moo koy dundal mooy lu aju suñu borom ñu xamee lool nag moo tax nun mbindeef mbindeef yëpp ba àdduna soo ba léegi dañuy bëgg waaju baax képp ku jege yàlla rek sa ruux moo lay poussé ci nga bëgg ko jege jegeñal ko suñu borom sax ci alxuraan gis nga loolu la ñu digal wax na ne am na ay xubaraaw fi maarifatillahi wa fi dil wa fi dégg nga am tadlili alayhi wa ma ila hunalik masalan am na fas arrahmanu fas al bihi xabiran suñ borom tabaraka wa taala am na ay gaa yoo xam ne expert lañ ci wàllu yàlla nga xam dañoo xam lan moo lay tax nga gën a jege suñ borom lan mooy tax sa ruux dund nan ngay def ba suñ borom gërëm la nan ngay def ba mu bëgg la yooyu yëpp am na ay experts yoo xam ne loolu mooy seen seen mbir nit ki nga xam ne ci àdduna si mbir mu ne am na expert wàllu économie am na expert wàllu e, e, wàllu communication am na ñoo xam ne expert lañ ci wàllu politique noonu la wàllu yàlla amee ay expert te yàllaa ko wax ci alxuraan arrahmaan fasal bihi xabiran dafa am ñoo xam ne boo demee ñoom nes tuut ñu def sa ruux dégg nga maam di dund ci leer yi suñu borom yi te ruux leer ko suñu borom rek moo koy dundal loolu nag moo tax nuy wër ba gis koo xam ni moom doy na sëkk expert ci ci ci suñ borom muy Cheikh Ahmadou Bamba koo xam ni moom suñ borom ci moo ko xëccal boppam yonente bi ci moom moo ko tërbiyaal boppam te xam nga ñii waa waa yàlla yi dañuy wax ne sëriñ dëgg dëgg mooy ki nga xam ne dafa jot ndigal ci yonente bi mu digal ko mu yar nit ñi te Cheikh Ahmadou Bamba loolu la am xam nga li suñu li yonte wax ne qul hadihi sabili ad'u ila ala basiratin ana wa man ittabaani ñi nga xam ne dañoo topp yonente bi ba am basira seen xol di jis seen xol ubbiku yoo am li ñuy wax al fatxu al irfaani wala al ilmu laduni xam ne suñu moo leen di wa atinaahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman suñu borom moo leen di ubbi ci xam-xam xamal leen yoon yi nga xam ne moo gën a gaaw ci àgg ci moom ñooñu nga xam ne dañuy dond yonente bi ci wàll yëpp ñooñu dañuy wax ne bala ñoo sañ a tërbiyee kenn wala ñu jaaral kenn ci yoon yàlla de yonente bi ci moom moo leen koy digal ñooñu nag ñun ñu yàlla baaxee na ci kenn muy sunu jàmbar ji Cheikh Ahmadou Bamba xam loolu yoonu yàlla yoon wi gën a gàtt ci ci suñu borom yi moom la ñu tegtal man damay wax ne toujours nun dañoo am ak des ci roy topp sëñ bi ci yoon yim nu jaarale buñ ci jaaroon nees tuuti rek kenn ku ne dana mos ci suñu borom loo xam ni da nga am mooy li gaa yëpp di ndax adduna si yëpp boo gisee ñëpp nga kër kër yi bëgg a dem seen borom waaye ñu bari dañoo xamul bunt ba ñii dañuy réer waaye suñu sëñ Tuubaa moom si Ahmadou Bamba yàlla jox ko yoon wu gàtt leer gis nga wirdam wii nii bi mu jógee ci géej gi ku saa ñëw ci moom yor weneen wird dalay wax ne kaay ñu defal la ba nga mën cee jariñu ndax bi mu demee ci wird ci ci géej gi dafa wax ne mboolem su yi yi fi nekkoon kenn ku ne jox na ko ndigal ci muy joxe ci wirdam dana wax nag képp ku mën a boole sama wirdu wi muy wirdul maxuud al maxuud min allahi bi wasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yaqadatan laa mën a man noonu la ko jote wirdu boo xam ni nelawu defu dara yonte ko ko sax muy leer solo wu mu yëpp war di jëfandikoo bala ma jàll foofu mën naa boo xam ni yàlla dogal muy ab muy ab salafi yu fikriyan eh, salafiste la dañuy mas waxtaan mu ne ma yéen wérdu wérdu wérdu wérdu yi ngeen wérd fu mu tegoog nangam ne ma léegi wax ma wérdu murit wérdu murit mooy lan lan lan ma di ko waxal par benn benn a'udhu billahi wa inni wa dhurriyyataha minash shaitanir min hamazati shayatin wa ma ne ko li ci njëkk mooy a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq wala hawla wala quwwata illa billahi alil azim boobu nga ñetti yoon bismillahi rahmani rahim bismillahi alladi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim ñetti yoon bismillahi macha allah laa yasuuqu alxayra illa allah bismillahi macha allah laa yasrifu suua illa allah bismillahi macha allah wa ma bikum min nicmatin fa min allah bismillahi macha allah laa quwata illa billah boobu ñett yoon bismillahi di seen bismillahi di seen al azim al burhan azim al burhan sadid sultaan macha allah kaan audu billahi min alsheytaan ba mu ñetti yoon allahu laa ilaha illa huwa alxayul qayum laa taaxuduhu sinatu wala na wax ko ko mënu ma yéen lii lépp ci àlla ci sunna la jóge mu ne ko yow da nga jàpp ne noonu am nañ jotu nekk fi def loo xam du <laughs> dama ci misaal ne dafa li ma bëggoon a kon mooy sëñ Tuubaa ku ma saa ñëw ci moom yor weneen wér da wax ne boo mënee yor sama wér wii baax na nga yem ci waaw dafa wax ne dala wax ne soo ko mënee booleeg beneen loolu nuurun ala nuurin la waaye boo ko mënta booleeg beneen nag yemal sama wérdu wi te xam ne la nekkoon ci yu njëkk yëpp yàlla dajal na ma ko ci wérdu wi mbooleem gaa yu baax yi wérdu ñi am lu ci ne ay secret am secret ku ne xam ne am na yooyu alxuraan juñu na ko kenn mënu koo mënu koo mënu koo dégg nga am euh, neenal secret yooyu nag ci ne wérdu bi ci benn baat lay ne baat yooyu yëpp nag yàlla ko yàlla ko dajaleel sëñ bi mu dugal ko ci ci ci ci ci wérdam wi muy am solo wu tawxiide boo koy def ne tuut nga jege sa sa borom te nun murid dañ ko dañ ko neenal te gis nga wax yooyu boo xëy suba danga lépp kennal suñu borom la waaw boo gisee yi boo gisee wërdu yëpp loolu nag kon ci kat maa ngi doon ñëw rek ci ne kon suñ ruux moo mar suñu borom te gis ne am nañ ci yàlla tawfeex nu bunt boo xam ni adduna si sëñ Tuubaa ci boppam dara wax ne law aliman law alima naasu maa huna la baadaru ila talabihi walakin lamma jahiluhu talabu gayrahu ne nit ñi buñ xaman man li ne fi man danañ daw ñëw ñëpp wut si ko waaye bi ñu ko umpalee moo tax ñu wuti leneen suñ tubaayal du ko def muy bunt boo xam ni bunt gënu ko gaaw ci bunt yi ci suñ borom tabaraka taala yoon wu gàtt ci suñ borom te yoon woo xam nit li ci gën a neex mooy daray bidaa nekku ci lépp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale diine daa tërbiya nit ñi noonu la ko jëlee dana jox misaal yu bare bari ci boo yeneen yoon yu bare bari xam nañ ko fii boo duggee wird wi moo la lëkkaleeg yoon wi boo ko noppee wird bokkatoo ci yoon nag mën nga cee nekk te doo wér wér duñ ko ilzam kenn duñ ko fardu ken duñ la duñ la ko imposé am na yeneen méthodes yi yoo xam ni ci lay yare lu mel jàngal xuraan ak ak euh, zikroog naa nga mën a am yeneen yu bare bare bari kon loolu laa bëggoon a ubbee mooy ñu xam ne nun suñ rox yi moo aajowoo di nga am euh, suñ borom loolu moo nu booleeg sëñ bi sëñ bi itam bi mu ñëwee murit yëpp tey moo tax mu bëgg nu dugg ci biir waxi sëñ bi loo xam dañ ko yóbbaloo sëñ bi leer nañu ku bëgg mos ci li gaa yi daa mos te ku ne xam na ne am na lu ñuy mos yonte bi ci moom moo wax moo daa wax ne daaqa xalaawatal imaan yi daaqa xalaawatal imaan mooy ko moo daa wax ne am na koo xam ne mos na neexitu ngëm yàlla neexitu ngëm yàlla kenn mënu la ko misaal xam nga am neexit woo xam ne neexitu ruux ku ko dund mënee su la ko misaal du lu ñuy expliquer kenn dégg li borom li gaa yu baax yi wax ne man daaqa araf wa man arafa taraf wa man lam yaduq in xaraf loolu moo ci ne mooy lu ñu problème mu mos la ak appliqué ba ba sa xol dund ci ci ci ci ci bëgg suñu borom day mujj da am neexit yëpp moo ko da moo ko dàq moo tax nga dégg kenn ci ñoom di wax naa man lam yaduq am na kenn ci ñoom day day wax ne lakinnahu bi xeyri dawqin maa duri wa dawqu fii fiihi an mu'abbiri maanaam buñ bu dul boo ko mësul rek doo ko xam mukk neexit woowu moo tax ibrahima ibnu ibnu adham saydi ibrahima ibnu adham danaa wax ne nun deey noo ngi ci neex neexit woo xam ni gaa yi àdduna yi buur yi àdduna yi président yi buñ ko xamoon danañ ñëw xeex ak noonu ci ay jaasi ngir maanaam nga xam ne li ne moo dàq la ne si ibnul qayyim al jawzi dana wax ne àdduna si am na fi àjjana joo xam ne ku ko mosul mosoo dara te mooy àjjana yi ci xol bi la ne sakki na kon loolu nag lanu sëñ bi bëgg nu nu àgg fa ci anam gu gaaw te it lu mu mu yoon wi di yoon wu barkeel woo xam ni maanaam nes rek nga nga mos ca mbir yooyu eh, sëñ bi nag yoon wi mu ci wi mu ci teg dina joxe benn dénkaane boo xam ne sëñ bee ko wax danaa wax ne ñetti bayit rek la gàtt ma tëje ko sëñ bi danaa wax ne xayru taami lil muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaalil maaliki murit bi nga xam dafa sóobu jëm ci yàlla ak lekkam aw ñamam dafa war a nekk saxoo tudd yàlla saxoo tudd du am solo ngi noonu saxoo tudd yàlla tudd yàlla ay façon yu bari la tudd yàlla bil lisaan ak dikru mooy tudd ko ak sa làmmiñ te loolu mooy lu mel ne ngay jàng xasida wala ngay jàng alquran wala ngay wax laa ilaha illallah wala ngay julli ci yonte bi ak salaatu ala nabi salaatu ala nabi dikr la mooy allahumma salli allahumma mooy yaa allah salli yow yaay julli man mënumaa julli dama néew kattan ci julli ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam yaa allah salli ala habibika muhammad alayhi salaatu wasalaam kon loolu dikru gën ko mag te yàlla ko diglee sëñ Fall danaa wax ni tool boo xam ni yàlla ci boobu moo tobbi sas malaayka yi tobbi eh, maanaam ñoom ñu dooñ leen ñu ñu cay ñu cay bay tooñ tool booba ku ca sàggan ba defoo ca dara dégg nga am yow ñàkk nga lépp te mooy salaatu al nabi yàlla ci moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mi ngoog sëñ bi léppam salaatu ala nabi day tam moo tax xasida yi dara gën ko mag ci zikru te yàlla ko nangu sëñ bi mujj na xam nga ci njëlbeenam yent bi moo ko digal mu yar nit ñi waaye ci mujjam dara wax ne tërbiya taqoo la laaj te man fi ne mënatumaa taqoo kenn moo tax da leen daa digal ñu ñu ñu ñu ñu sax ci xasida yi di ko jàng danaa wax ne xasaayid yi faaqat suyuuqa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuuqa tarqiya xasida yi nee na moo kawe sëriñ tarbiya yi li nga xam ne dañ lay jaarale ci yoon loolu sëñ Elaaji Mbàkke gis naa mu def ci seetlu bu am solo mooy sëriñ tarbiya boo ñëwee ci moom da la wax defal lii di la digal ak a tere léeg-léeg mu gëdd la léeg mu kii la xasida nag duñ la gëdd duñu wax a yow te nes tuut nga jóg kon loolu faaqat suyuuqa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuuqa tarqiya bi dafa wax ki nga xam dafa soobu di ab jullit bëgg a dem ci suñu borom na taqu tudd yàlla tudd yàlla nag wax naa ne wax ko ji làmmiñ comme noonu ñu ko waxee mi ngi ci waaye am na tudd yàlla boo xam ne mu gën a kawe muy addikru bil qalbi sa xol di fàttaliku yàlla ci xam nga am na ci aaya boo xam ne ci mujj ga dafa wax ne wala takun minal gaafilina wala ku minal gaafilina day tegtale ne xaf la la ñuy bañ sa xol fàtte yàlla sa xol nag man laa biir ko mbokk jël yëpp boo bañ a fàtte yàlla am na yoon wu gaaw mooy na yow toujours yaa ngi am ay xéewal yoo xam ne sël yoo xam ne yàlla la ko defal xam nga damay far di misaal ni dama ko ma sa dégg ci borom xam bu mag mooy ni lépp loo am da war a julli bi dafa a xam ne yàlla ko ko jox li koy misaale mooy mi ngi mel ne yow sa mbokk sa mbokkum taalibe bi mu nekk fële ca réew ma Italie wala Amérique fi sañ Lamine ñoom ñi ne nga toog fii aw xew jub nga am ci jafe-jafe lool jaaxale xamoo yoroo ñaari dërëm yoo ci def mu yónnee la dégg nga am ñaari million yoo xam ni dana jagal euh, dégg nga xew wi te boo weesoo da nga ci mën a def dundub at benn waay xëy suba fekk la sa kër yaa ngi waajal saw xew mu nuyoo yow jàmmante ne daa sëñ boo kebe day ca Amérique wala ca itali moo la yóbbante ñaari million yi loolu ñaar di am yow dinga nga sant waa ji la ko waa ji la ko defal waa ji nga xam ne moo jógee moo ñëw indaale yóbbante bi di nga ko sant waaye nag ka ngay gën a sant mooy kan mooy ke kay ka yóbbante yóbbante ba kooku boo ko jël di nga ko sant cant ko rëy di nga ko wol sa bopp sant ko maa ngi lay sant bu wér wér ci li nga ma defal loolu nag mooy suñu borom suñu borom lépp lu ñëw ci yow gaa yii daa jaar ci ñoom rek war nga leen a sant man lam yashkurin naasa lam yashkurillah riwaayaat yu bari la ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee waaye ki war a gën a sant mooy ki la yónnee xewal gi mooy suñu borom xewal gu am moo la ko yónnee te nun suñu lépp ay xewal la masalan boo tëddee guddi rek tàmbali boo tëddee guddi da ngay jekkee rek tëdd ne tuut nga yëg ne nekkatoo mu wër la indi woo nelaw yi te nelaw mënta ñàkk ci nit boo amutoon ay fan doo xam looy nuru da jaxasoo kon ka la indil xewal gi mooy suñu borom muy kii te boo ree ba ba ba ba li nga ci aajowoo doy nga yeewaat nga gis ne am nga sa sago loolu defoo ci dara xewal mag nelaw yàlla defal la ko nit ki kon bu demee bay tëdd war naa fàttaliku yàlla xam ne nelaw yi kat yàlla ko ko ko ko ko ko benn ngi noonu tey boo boo boo yeewoo moo tax yonte tamit lépp daa ànd ak zikru fi ne bu ma saa yeewoo day wax ne alhamdulillahi alladi radda ilayya ruuxi yu am solo yonte bi lépp jàng na ko dina wax ne maa ngi sant yàlla saa yu yeewoo day sant yàlla boo yeewoo dugg ci na maa ngi ko jégal dugg ci wanag wi masalan boo demee tooke yi nekk sa biir nga nga nga nga yàlla jàpp na la nga génne ko fa ci anam goo xam ni dafa jàpp ni te yooyu bu desoon sa biir bii ay fan yu néew mën ngaa sax faatu ndax dara ndax ay ay ay tooke la ak ay posen yoo xam ne moom ngay génne foofu jàpp ni gim la jàpp nga koy génne loolu aajo woon a sant yàlla aajo na nga fàttaliku yàlla mi nga xam ne moo la xéwale nga mën a génne lu am na ñoo xam ne fi ne bu ñu bëggee tuur ndox faaw ñu dem hôpital ñu ñu defal leen ay butéel génne ko nga xam ne loolu sonle la xam nga koy tuddee. am na ñoo xam ne dañuy def ay jalis masalan kon ne xam na ne am na feebar yoo xam ne fi ne toujours da ngay dem hôpital dem baagante ñu lay génne ak génn yow na yàlla musal la ci loolu kon war nga fàttaliku yàlla ci loolu moo tax yonte bu masa génn ci lu mel noonu day wax ne alhamdulillahi alladi adhaba anni al adha wa aafaani loolu la daa wax maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo génn ci man lor yi nekkoon sama biir ba pare defal ma jàmm ndox mii nuy naan nii nga xam ne yaa maanaam boo boo faje aajo ba noppi ñëw tiim ndox mi di waaj jàpp ndox da koo miin rek waaye xéewal gën koo màgg yàlla da ko def ci qualité boo xam ne moo dëppoog ni nga ko bëggee nga xam ne ni maanaam fëttut ba ëpp comme ay diw lu yoxut ba ëpp it ba weesu aajo ji nga aajo def ci qualité boo xam ne te fi ne da ko def ci da la ci jox kante bu bare bare bare ba nga xam ne li nga ci aajo wa lépp di ko am te ndox fi ne ñetti fan boo ko amoon te amoo ndox da kenn du xamante looy nuru boo sënguwut naan moom dama ko jël léem boo ko defut ay fan na faatu kon ndox xéewal a ngi noonu koo xam ne yàlla da ko jàppandal ci sa kanam bari goo ko bari miin goo miin xéewal gi tax na yow doo fàttaliku ne lii xéewal la kon kooku war nañ ci sant yàlla lekk tey boo tibbee ndab li nga gis aw jën fii gis fii da nga am puloox gis fii nangam nangam te yooyu ku ci ne fa mu jógee ba agsi fi ci bu ñu la ko waxoon ay kilomètres yu bay la baykat ba bay ca Indonésie wala fii ceeb ba ñu jëlee ko fële jën bi benn waaye jaar fële ca eh, da nga am jiwaalo napp ko fa muy wër ci gaa yi ba agsi ceew lépp nga tiimandoo ko ca sa palaat maanaam lépp li nit lekk mënta mënta weesu xew ñaari xewal yooyu loo xam ne ci suuf si la ñore wala mu jóge ci jur gi nga xam ne moom la ñu yàlla xewale te yooyu yëpp yàlla koy indi loolu kon boo tiimee ñam war ngaa fàttaliku suñu borom suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax bu ma saa xewlu ba noppi day wax ne alhamdulillahi alladi atamani hada taam wa razaqanihi min gayri xawli minni wala quwa baat yu am solo maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma leel ñam wi te man benn pexe ci leel sama bopp wala kàttan awma ko mu defal ma lépp ma suur yàlla mi ma defal ma suur ni maa ngi koy sant mi ngoog eh, loolu lu am solo borom daarul moxti mii daana ci teg lu am solo loo xam ne maa ngi ko labir ñëppit bu ma sax xelu ba nag ba wax loolu da ci teg alhamdulillahi alladi jaalani ashtahi wa ajidu fa kam min mustahin laa yajidu wa kam min waajidin laa yastahi baat yu am daw koo ngi noonu baat yoo xam ni yu ay caf yu bari moo ci daje borom daru moo ko daa wax loolu buñ ci bëggoon waxtaan rek oboo di ku leer moo ci feeñ li ñuy wax salabul ixtiyaar du sëñ bi di ko wax te mooy loo loolu da ca feeñ baax a baax ci baat yooyu kon yooyu it bu masaa xewlu moom borom dara la ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jàngalelee kon yow boo xewloo itam foofu fàtt fàttali ko fi yàlla li ma bëgg a mooy nit ki jamono bu ne lu koy fàttali yàlla mii ngi mi ngi mi ngi moom lépp loo def rek boo bàyyi xel danga xam ne lii xéewal la ko jóge suñu borom war nga caa sant sa borom loolu boo ko dëkkee sa xol nes tuut da ngay sopp yàlla da nga koy bëgg koo xam ne toujours moo lay moo lay moo lay defal xéwal yi da koy bëgg boo ko bëggee nag dugg nga ci àjjana ji gaa yi wax bëgg yàlla bëgg mooy mooy mbir mi bëgg mooy mbir mi gaa yi bëgg yàlla leen defal tawfeex sax ñu mën a nekkaat ci nit ñi waaye lu ko mooy dañuy mujj dégg nga am dootuñu mën a nekk ci nit ñi bëgg moo tax ñu ci bari dañuy bari ay nattu ndax dañuy mën a nekk ci jàmm bu pare teg seen bopp natt yoo xam ni am na koo xam ne ñoom day wax ne man lam yaduq zulma alxabibi ka zalmihi xulwan faqad jahila almahabata waddaa nee na bëgg dëgg boo nekkul ci coono ba pare sa sa ki nga bëgg teg lay coono mu neex la boole ci xamal ne yow da ngay wax rek waaye bëgg boo dëgg rek